ne gennal ah, fi amo ben ful bu ñàkk fayda jëf gi ma def noo ko ma ne ma ne génnal jarul ngay yëngu mané ko gisub sat la xam ba jago ñewal dafa fajaru de. dina la fajaru ya li ma def noko mané bur yow nekkate yo bi ñu ma naan ma takali jaba nak ma defal li may dem musuma gis xale bi. waaw tegu ma ko la tol comme yow. sa génération la. naa la duma na laay mujjee. kan ngay dugg. duma na kon yow coow la jub bi coow la coow la yow la yow. moom coow yi li kon yow sa xel nga ci ñaareel. nan la nekk sama xel sa xel ci ñaareel dimbali ma laa la. sama xel nekkul ci ñaareel. dama koo takkal rek loolu loolu. ma sama jàmm ak li am fit yëpp yow da nga am fit ba xam nga ma ñaareel moom. xam nga ma nanga réglé laa la yëgal. nanga réglé. boo ne ma nii man boo ma nii man sama jàmm tey la kañ nag yow. eh eh eh tey la kañ. sama jabar laay waxal sama jabar laay waxal sama nëw ci. fekkee ma si boor. xam nga ni may laajee dépense bi ja jaaduwul. ñëw fekk sama kanamu nawle yi li ma laajee dépense xeet xeetu laaj gi yaakaar li si wiisal waaye lenn naa koy gëmal mooy kaa jóge doxul. tey lii laa fi yor. téeméer. eh 600 yi ànd leen ñaa xam boo ko jëmee yaa ngi dégg. lii dama ko laal. junni laay laal. junni laay yóbbu marché junni comme sama morom njëgi ni koy defee wax naa. dama marché yëpp sa dëkk boo fa yeggee nga xool lu la neex nga eh, eh, bu wax xam. ah mën nga naa xam yow laay wax xam. Ah, ah. même sama jàmm eh, ñàkk fay la bëgg a dee sëpp ñàkk fay la. am na lu may set. ñàkk fay la bul set leen. ante ci weeru koor lañ nekk. ah, ah waaw <laughs> de kii gor kii démb lañ ko fi takkal deuxième femme mu daal ñëw fii ni mu muñaale ko ma ne man nga xëy mer waaye nga xëy sañ sal jekk territoire fa kalamasa gis nga bu doon yow e da ngay naan amoon ñaag wala nga naan asib ma polose ma sa kaw salaamaaleykum doon man e yow bandoo ajana waaw ah, ça va non rek ça va alhamdulilah ça va ça va mag sama waaw sama ça va bien waa noppale nga bu baax waa noppale ko si nga buur yi ngay def nii neexuma de nii bugguma ko. Baye Goro. am lii lu kii yee jarata ko waay. Eh, kii yee deuxième femme waay. Eh, eh, kii yee góor kii yee garmi. eh buur. eh ma ne fii nga dal baax na de. oh oui oh oui. lii tey. waaw maa ko rees. maa ngi dem tey ñëw. sama barke. demal tey ñëw. gannaaw ba ndogu bi moo ko rees. tu disposer. ma ni. buur. waaw. xam nga <laughs> leen ndogu ah andi xaar ku leen woo itam tekkul. ya tawul Ya, yaa dama ne tey fi nga commencé moo baax xolam. kii sur la palaa nga teg ko ci palaa mu ànd ak eh, ya palaa. tuwaar yàlla. buur donc lu mel nii mosu am. Ya. ah maa la ko wax. eh lo may ñoppate Lo may ñoppate man damaa mën tee wax man doomi géwél laa kenn mën maa tee eh, wax. ndeysaan. man waaw man man Mia man gestion bi xam naa ko waaye lii lu mu. ne man lan boo. jàmbo ne booboo laa xam waaye jàmbo mu mësuma koo xam. lan ci biir. Eh. ay keccax ak ay kenn xamul lañu. Eh, eh. keccax ah, lan ah ah Samba Samba. Samba. yàgguñu maa yow di lekk keccax bi ci kër. Samba suba am na. ah non yow yow mel na ah. jàmm damay wax. gis nga man kenn maa tee wax xoolal. na des ak jàmm. xoolal banaana bi kii. li ma gën a neex ci moom mooy vitamine bi mu am kii banaan jëm xoolal kii tubarfakal vitamine C la am boo ko dóoree da nga am sawarte xam nga boo wóoree ba doog tubarfakal macha allah suukar da da da day kii day day da waaw eh, eh, eh. Paa laa jéggi noonu de Paa laa jéggi noonu laal ci tàndarma ji <laughs> ah, ah. léegi ah, ah. mosol dogal waroon de